alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ataamaani akmalaani ala sayyidil xalqi ajmain wa ala alihi wa sahaabatihi ajmain wa sallallahu ala sayyidina wa xabibina wa shafiicina wa wasilatina ila rabbina mabuusu rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahaabatihi ajmain amma baad asalaamu aleykum wa rahmatullah ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jox kenn ku nekk seen wàccuwaay di ñaan suñu borom tabaaraka wa taala nuyoo bii nga xam ne moom ne nuyoo mu fekk si leen ci jàmm ginnaaw ba ñuy sante yàlla julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñu ñëw insha allah ci silsila boo xam ne ne eh, ci podcast boo xam ne ne dañ koy tuddee sunanul mahjura lan mooy sunanul mahjura mooy ay sunna yoo xam ne ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam da ko baaxoo woon waaye du de fur et de fur mesure ci temps bi génération après génération ñu mujj su yenn sunna yi eh, dafa dem ba réer yenn yi dafa dem ba kenn daanaka ñu bëri xam nañ ko gaa waaye nangu nanguwuñu koo jëfe kon incha allah ñaari cas de figure yooyu moo am mooy soit loo xam ne nit ki xam na ko waaye tayal wala ñàkk xam ngëneel yi ci nekk tax bu gàddaay sunna boobu wala mu nekk loo xam ne rek tout simplement du ko xamul kon incha allah dañoo fas yéene liggéey ci bunt boobu fexe ba dekkil wala xamal yenn ci sunna yi nga xam ne yonent bi alayhi salaatu du da koo sunna woo woon ngir bokk jullit yi mën cee jëriñoo bu baax a baax a baax kon incha allah ci bunt bi dañ ci sukkandikoo ci téere mu muasir di Muhammad Saïd Raslan mu ngi juddu ci 1955 ba jamono tey jii mu ngi dund donc suñu contemporain la bu nu bind na ci benn téere boo xam ne noonu la ko tuddee sunanul mahjura nga xam ne lii nga xam ne mooy suñu objectif daanaka da ko cee ci ko cee tënk kon képp koo xam ne bëgg nga ci bëgg nga ñëw suivre mën ngay toppaale nànk-nànk téere boobu incha allah waaye ñu fàttali tamit ne képp koo xam ne da nga bëgg jàng lu aju ci sa diine xam-xamul islaam yi te mooy jàng alquran jàng fiq jàng xadis jàng tafsir ak yu ni mel mun nga ñëw contacter ci 77 260 42 70 suñu lien wu site bi dinañ ko def ci description bi incha allah kon bu loolu weesoo bu ñuy wax ci sunanul mahjura dafa am buntu bu am solo boo xam ne moom lañu war a njëkkee mooy loo gis lu nekk rek dafa am nuñ ci tàmbalee dafa am méthodologie buñ ko buñ ko war a traité xëy na am na ñu bari ñoo xam ne xam nañ lan mooy sunna waaye du ñu fàttali def tarif bi c'est-à-dire définition wu lan mooy sunna bu ñëwee ci définition bi nag da ngay xam ne sunna mooy maa usira an nabi sallallahu alayhi wa sallam Euh, mooy lépp loo xam ne ne dañ koo jëlee dafa nekk ay traces yu ñu jëlee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam min xawlin aw fi'lin aw taxriirin mu nekk ay wax wala ay jëf wala mu nekk loo xam ne rek dañ koo dañ koo da koo dëggal c'est-à-dire da koo taxriir da saxal waaye tamit sunna ci boppam ci ulamaawul xadiis yi mooy lépp loo xam ne ne ribara la boo xam ne dañ koo jëlee dañ ko dafa rot ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu nekk soit mooy lépp loo xam dañ ko koo askanale mooy euh, idaafa alayhi mooy loo xam ne ne dañ ko koo askanale ci ay wax ci ay jëf ci loo xam ne da koo saxal wala mu nekk loo xam ne day wax ci ay sifaatam c'est-à-dire ay meloom xulqiya yoo xam ne ne koñuk euh, jikko la wala xalqiya konik melokaan la maanaam ni ñu bindee yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci soit mu nekk loo xam ne ay wax la wax yoon saa sant ko wax nangam wala mu nekk loo xam ne da koo def wala mu nekk loo xam ne ne dafa am kenn koo def mu mu dëggal la ci mu dëggal ko ci walla mu nekk loo xam ne day wax ci rek ci ay ci ay melokaanam ci wàllum jikko wala ay melokaanam ci wàllum jëmm ci boppam ni ko suñu borom tabaaraka wa taala teralee jëmmam jooju bu tedd bi waaye tamit sunna Euh, comme ni ngeen ko seetloo dafa bëri ay définition bu fekkee na mi na fuqaraa ñi nga xam ne ñoom ñooy ñu mujj ci faqi yi mooy faqi yu mujj yi suñu sunna mooy lépp loo xam ne boo ko defee dañ la ciy fay waaye boo ko bàyyee te teyoo ko kenn du la ci kenn du la ci mbugal maanaam kenn du la ci teg benn daan kon bu fekkee fuqaraa yi ñoom noonu lañuy tekkee li nga xam ne moom mooy sunna sunna nag ci lisaanu nabi sallallahu alayhi wa sallam mooy maa jaa bihi min min al huda wa diinil xaq mooy lépp loo xam ne dafa dikk ci moom ci loo xam ne ne ak njub la sunna lépp loo gis lu jóge ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam aw njub la amul yoon bu jub bu gën a jub li nga xam ne yonent bi alayhi salaam moom la yoonal wala moom la sunnaal moo tax mu doon wax ci xadiisam bu siiw boobu képp koo xam ne ne xemmee moo sama sunna buggoo sama sunna kooku bokkul ci man kon loolu lu jar a bàyyi xel la kon jullit yëpp li ñu ci war a dégg mooy képp koo xam da ngaa bëgg ci da bëgg bokk ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ah kon da ngay xem même li nga xam ne moom mooy sunna ndax lan ndax lépp loo xam ne dafa dikk ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amul sikk sàkk te moom mooy diine dëgg bi mooy diine bi gën a jub mooy li lépp lu jóge ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam waaye tamit moom mooy minhaj minhaj mooy lan mooy yoon bu jub bi nga xam ne ne ah, képp koo xam ne ne da nga ko bàyyi nekkoo ci lislaam waaye képp koo xam ne ne topp nga minhaj boobu moom mooy yoon boobu noonu amul benn sikki sàkka ne nekk nga ci islam te minhaj bi nga xam ne yoon boobu la xam ne yonent bi alayhi salaatu salaam moom la fi bàyyi mooy lan mooy sunna moo tax mu wax ne euh, maa ngi leen di bàyyil ak sama maa ngi leen di bàyyil sama sunna ak sunna sama samay xalifa kon loolu lu jar a bàyyi xel la ak tamit xadis bi nga xam ne dafa wax ne bàyyi naa leen ci yoon boo xam ne bu leer naññ mooy yoon boo xam ne bu weex tàll bu leer naññ boo xam ne képp koo xam ne topp nga ko amul dara loo xam ne da lay mën a sànq waaye tamit sun na tamit da ciy dugg li mu fi bàyyi yoon saa li mu fi bàyyi ci ay jeexital ci sun na loolu tamit da ciy duggaal ci wàllum aqida mooy lépp loo xam ne da nga koo war a saf da nga koo war a da koo war a saxal wala loo xam ne da nga koo war a pas da nga koo war a fas waaye tamit day dugg ci biir tamit ibaadaat yi lépp loo xam ne tamit ay jaamu yàlla la yom saa sam da koo jàngale li nga war a fas yom saa sam da koo jàngale à travers sunna li nga xam ne da nga koo li nga war a jaamoo yàlla yonent bi alayhi salaatu wasalaam ko fee bàyyi ngir lan ngir ngir nga xam nag ngay jaamoo yàlla lillaahi masalun ahla yàlla bu ne ci alquran ahimi salaat mooy taxawalal julli taxawal julli boobu euh, suñu borom tabaaraka wa taala bu la ko waxee waxul la ñaata ràkk nga war a def wax la ñaata ràkk nga war a def wax la tamit naka nga ko war a defe waaye sunna yonent bi alayhi salaatu salaam yonent bi salaatu salaam moo lay jàngal naka nga ko war a defee ah, naka noonu tamit li nga xam ne moom mooy ñaata ràkk mooy ràkka suba ràkk tisbaar ràkka tàkkusaan ràkka timis ràkka gee yooyu yëpp yonent bi alayhi salaam moo lay wax bi bi bii ñaar la bii ñeent la bii ñett la et cetera donc yonent bi ci ay sunnaam ci li mu jàngale ci nañuy jëlee tamit suñuy nu ñuy jàmmoo nu ñuy jàmmoo yàlla waaye tamit muamalaat yi lépp loo xam ne ne ay jëflante la naka nañuy takkee sëy naka nañuy tuddee doom naka nañuy demee eh, seeti ku feebar naka nañuy fajee naka naka naka et cetera yooyu yëpp ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam à travers sunnam ci noonu lañ koy ci moom lañ koy jàngee waaye tamit da ciy dugg ay yaram lan yar yan yar ndax yonent bi alayhi salaatu suñu borom tabaaraka koo taala da ko fee indi pour principalement ñetti mission mooy premier bi moom mooy ngir mu jàngal xeet bi jàngal leen lan jàngal leen alquran waaye tamit jàngal leen sunna waaye dernier bi aussi mooy lan wa yuzakkihim waaye tamit ngir mu yar leen yonent bi salaam dafay indi loo xam ne ne matériel nécessaire yi nga xam ne da ko da ko fee teg dafa am ay matériaux nécessaires yoo xam ne da ko fee teg pour képp koo xam ne da ngaa bëgg tegu ci yoon bu baax boobu moom mooy xad aflaha man zakkaaha wa xad xaaba man dassaaha boo ko bëggee appliquer mooy fexe ba setal sa bakkan yontu bi saa sam bàyyil na la fi loo xam ne ne boo ci jaaree sa bakkan dina ci mën a sete moo tax ci sunna aussi da ciy duggaale en même temps loo xam ne ne ci wàllum axlaax lay nekk maam ci wàllum jikko ngir lan ngir képp koo xam ne da ngaa bëgg suluuk da ngaa bëgg sóobu ci yoonu ci yoonu yàlla kon boo déggoo boo déggee loolu da xam ne lépp lu aju ci aqida mooy iman comme xadisu jibril bi alayhi salaam lu ñu ko indee yonent saa sam jàngale na ko ba mu mat lépp loo xam ne ci ay jaamu yàlla la yonent bi alayhi salaatu wasalaam jàngale na ko ba mu mat lépp loo xam ne tamit sax ay jëflante la yonent bi alayhi salaatu wasalaam à travers sunnaam jàngale na ko ba mu mat lépp loo xam ne ne suluuk la yonent bi alayhi salaatu wasalaam jàngale ko jàngale na ko ba mu ba mu mat lépp loo xam ne ne sax wàllum paj la te day dugg ci muamalaat bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam jàngal na ko mais naka la ko jà jàngee maa jaa bi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mooy lépp loo xam ne dafa duggee jugee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lépp lu jóge ci lu aju ci lii wa huwa sunnat sunnatuhu loolu ay ay sunnaam la maanaam eh, sunnaam la boo xam ne da koo sunna woon donc jullit bi li mu war a def mooy nag mooy jàng nag sunna yooyu lan la pour mu mun a appliquer diineem pour mu mun a xam naka la diineem war a taxawee beneen partie bi ñuy wax donc loolu moom mooy lu aju ci définir lan la sunna di tekki waaye bu ñu gisee tamit ci samaraat samaraatul iltiza iltizaami sunna muy nag lan ban ban jeexital ban jeexital ci lay am ci képp ko xam ne da sax wala da ngaa takkoo ak sunna yonente bi sallallahu alayhi wa takkoo ak sunna yeneen bi alayhi salaatu wasalaam lu mu lay njëkk a permettre mooy yuus yuusalu yuusalul yuusalul abdu ila mahabbatillahi tabaraka wa taala boo takkoo ak sunna la budda amul benn sikki sàkk ne di nga jokk ci sa borom tabaraka wa taala loolu amul sikki sàkk képp koo xam ne dafa bàyyi sunna borom xam-xam yi boo xoolee nitu yàlla yi parfois da gis ñu dem seeti sax benn nitu beneen nitu yàlla boo xam ne ne li ñuy seet li ñuy njëkk a seetlu ci moom mooy est-ce que day topp sunna wala naka la mel ci la comme li ngay gisee Abu Yazid Abastami ba mu demee di seeti benn waay mu ji gis ko muy tufli ci xibla bi dafa dëpp maanaam nanguwu ko woon sax nuyu parce que lan parce que dafa ne koo xam ne dafa négligé nii sunna ba fàttes ba am rafla la à dire raf ko amee nii rafla ci sunna cest à ki am yëgadi ci sunna ba sax bàyyiwul xel sax ne tufli ci xibla dafa xaraam kooku naka laa mën ci moom ci yàlla boo xoolee nitu yàlla yi noonu lañ meloon ci sunna moo tax nga gisoon nitu yàlla sëñ Tuuba radiallahu taala anhu boo xoolee bureau ba ndar li nga xam ne moo ko sabab mooy ñaari ràkk yoo xam ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam da ko sunna woon di ko naafila bu fekkee dafa ñëw ci bërëb bu bees loolu moo tax nga gisoon buggoon julli ñaari ràkk sunna la woon te gis nga lu ko ci jural ci wàllu xët-xët léegi imaginel ku mel noonu la xam ne sunu na rek moo tax mu ne par force dina ko julli imaginel kooku bu nekkoon farata léegi tamit nga xool lu ci mel ne Seydi xaaji Malick nga xool nan la meloon ci sunna ak ñu ni mel maanaam exemple bi lu bëri la par exemple radiallahu taala anhu sëñ Touba gis nga julli bi nga xam ne moom la doon julli julli korité bi la xam ne ne boobu dafa nekk ca Gabon la xam ne moom rek moo fa nekk ak tubaab bi mais teewul sax dafa ne day respecté na day appliqué na ak lu mu fay wéet wéet wéet ba jël ginaaram wala jël dara ray ko cetera def lépp loo xam ne daal euh, ci bis bi moom moo ci war ci wàllum xeet bi def ko def ba sax xut xutba julli te boobu ba muy julli moo ngi nettali ne am na ñoo xam ne comme xamuñ lu muy def ñoo ngi koy ree mais teewul mu ngi continuer rek di def lu muy def loolu rek exemple la ci nit ñi nu ñu nu ñu meloon ci ci ci sunna Seydi Hadji Malick gis nga ko tamit nu mu mel ci sunna la xam daane ko sunna bi rek côté sunna bi rek moo doon feeñ ci ci moom du ci ëpp kon loolu tegtal la rek boo xam ne day wane sunna nu mu fooree ci nitu yàlla yi. loolu sax daawuñu ko duñ daawuñu ko woon bàyyi nitu yàlla yi kon pour wax ne ne dañ daan roy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax lan ndax gis nañ ne saxaaba yi ñoom ñooy ñu gën ci xeet bi te saxaaba yi. ñoom boo xoolee dañ leen sax boole ci wàlli wi parce que lan parce que dañoo dépassé classement boobu yonent yi rek ñoo leen raw te ñoom lenn rek nañ leen xamee ci ay ci ci ci lu spécial mooy niñ daan fonkee sunna yonente bi salallaahu alayhi wa sallam loolu moo tax nga gis nitu yàlla yi ñu gis secret bu nekk ci noonu ñu xam ne ne lépp lépp lépp lépp day wërwërloo ci yonente bi salallaahu alayhi wa lépp lépp lépp lépp lépp day wërwërloo ci sunna yonente bi salallaahu alayhi wa sallam loolu nag boo ko respecté boo ci nekkee boo ci góor góorloo amul benn sikk sàkk ne nitu yàlla yi li ñuy wër di ko am mooy lan mooy mahabba mooy sopp bi nga xam ne yonente bi suñu borom tabaaraka wa taala daf la koy daf la koy daf la koy sopp incha allah da koy am ndax lan ndax képp koo xam ne da ngaa takkoo ak sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li muy moom mooy lan mooy ne yaa ngi ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye tamit yaa ngi koy topp n'est-ce yaa ngi koy topp ci ay ndigalam naka noonu tamit yaa ngi maytu ay tereem comme ni mu waxee ci xadis bi ne lépp loo xam ne ne dama leen koo digal lépp loo xam ne dama leen koo tere na ngeen ko maytu waaye lépp loo xam ne dama leen ko digal na ngeen ko def seen kéemtalaay kàttan kon boo jëlee yonent bi sallallahu alayhi def ko sa def ko sa sa yonent def ko sa sëriñ def ko def ko say euh, ñiituwaay ñiituwaay moom mooy say lunettes yi nga xam ne moom ngay xoolee amul benn sikki sàkk ne di nga tegu ci yoon bu baax bi te loolu li mu lay jural li gën a rëy moom mooy lan mooy dangay am cofeelu suñu borom tabaraka wa taala ndax suñu borom tabaraka wa taala dafa wax ci alquran ci suratul ali imran qul in kuntum tuhibbuna allah fattabi'uni yuhibbukum allah mu ne bu fekkee waxal suñu borom mu ne yonente bi sallallahu alayhi waxal in bu fekkee tuhibbuuna allah da ngeen sopp yàlla da ngeen wax ne dangeen sopp yàlla nii kon topp leen ma kon topp leen ma kan yonente bi topp leen ma yuhibbukumullah bu boobaa yàlla dina leen bëgg gis ngeen suñu borom tabaaraka wa taala dafa teg benn condition mooy ñi nga xam ne dañoo wax ne dañ maa bëgg duma leen sopp mukk tant yow yonente bi sallallahu alayhi la kon loolu day wane ne képp koo xam ne da ngaa roy da ngaa sax da ngaa jël sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sunna woo ko mu nga boole ko ci nga xam ne ne moo lay préoccupé loolu dafa bokk ci li nga xam ne ne moo lay may al mahabba al mahabba mooy sopp mi nga xam ne yonent bi alayhi salatu wasalaam dalay sopp te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam képp ku mu sopp amul benn sikki sàkkane suñu borom tabaraka wa taala sopp na la te képp koo xam ne ne yàlla sopp na la amul benn sikk sàkk la na yegg nga ci yegg waay kon incha allah dinañ gën a xuus incha allah ci samaraatul euh, iltizaamu sunnatu nabi sallallahu alayhi wa sallam incha allah ci yeneen jotaay yii di ñëw incha allah in uridu ila al islaaha ma stataatu wa ma tawfiqi illa billah subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifun wasalaamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin di leen fàttali aussi képp koo xam ne da ngaa bëgg inscrit ci na ci institut bi mun nga ñu contacter ci 77 260 42 70 asalaamualeykum wa rahmatullah